am na place boo xam ne boo ko fa tegee rek boo ca la ba di leer lu dul loolu nag du mën a leer te nag ñàkk a xam manaaku muy wékkukaayu mbir mi fa ko tax a jóg ñàkk koo xam day tax fi ñuy toll mën naa fekk koo xam ne dañ saa waroon a yombal mu diisal ko mën naa fekk koo xam dañ saa waroon a diisal mu yombal ko mën naa dikk def njuumte lu rëy rëy ci mbir yu demee noonu moo tax al imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ci misaal ci loolu rek bokk na ci masalaam mu ne nit ki su jógoon dem fekk ab kuy denc ab néew mu ñëw bokk ci ca gis ñuy def ay munkaraat maanaam lu baaxul ñi di ko def ca armeel ya imaam ahmad nee na kolit amul droit gi dellu faaw mu ànd ci junni nga ànd ca rob ba jeex mu ñibbi waaye sañu koo dagg di dem ndax ne lañ fay def di daal ba noppi wëlbati moom imaam ahmad ci beneen masala ne su fekkoon ne nit ki jóg na dem ci ngénte wala ak ciit gis fa lu ñuy def loo xam ne juyoon ak sharia na ñibbi la ko dagg ñibbi al imaam ibnu alqayim mu ne bi ma gisee masala bi fa saaltu cheikhana nee na ma ne ko mal farq ibnul kenn ku nekk xam na ko ak comme toll ci xam-xam waaye teewul dafa amoon koo xam ne lu ko jaaxal ci moom lay jàll ci wàllu xam-xam muy ibnu taymi nee bi ma xoole ñaari masala yi xool xool xool lu leen wutale ma ñëw ci ibnu taymi yaa cheikhana mal kii nee na boo àndee ci néew bi buñ dee def lu baaxul kon di leen ànd ca ba suur ba jeex nga ñibbi te boo demoon ci céet gi tey boo gisee lu baaxul nee na ñibbi nee na mu tontu mu ne li anna alxaqa fi ljanaazati lil mayit fala yutraku xaquhu lima faalahu alxayu min almunkar والحق في الوليمة لصاحب البيت فإذا أتى فيها بالمنكر فقد أسقط حقه من الإجابة loolu mooy xam-xam nee na mu ne ko néew bi fiñ suul nga teewe si néew bi bokk ci julli bi bokk ci suul bi kooku xaq xam la sa diggante yow su keneen kuy dund ñëwee di fa def loolu lu tax ak xam ji tey téewut li waroon moo war ko tey waaye nag borom ceet bii wuñ ji gën koy wuñ ji kooku xaq xam la su lànkee di fa def lu bon di misi gona mi def ay jaaxaan ak si wuy si ja day dagg parce que moo ko defal wala wala wutale bi kooku mooy manaatul fatwa loolu moo tax yàkkam ci masala boo ko defee rek da ngay ñëw ne ah kii li benn la benn la te fekk na wutale rëy rëy bu kon taxqiq manaatil fatwa ci bunt yi nga xam ne ci la borom xam-xam yi di rawante ci la bokk moo tax moo tax ndaw li mënta tëb wala mag mi sax jàng dara xam ne lii mooy dalilam tax mu mën a nekk mufti ci loola danaa del ci waat ma leeralaat tuuti ci li mbokk bi doon jigi sànq l'islam ba muy ba muy ba muy yore mbir yi nekk état la ko tàmbalee ci jamono yi alxulafa rashidin ba ci suñ jamono yi tey ñu ci yor état l'islam lii mu doon junj dafa am li ñu tudde daarul ifta daarul ifta buñ ko waxee dañuy tànn borom xam-xam li nga xam ne xam nañ ni ñii xam nañ lu ñu ne leen ngeen toog leen kooku loolu seenu liggéey kuy laaj na ñëw laaj ci leen su ko defee jox leen seeni i cachet ak seen yëpp nga xam ne suñ tontoog laaj ba àggal dañ koy tamponné jox ko nit ki mu yor këyitam laaj naa borom xam-xam ya tontu nañ ma lii lañ ma tontu ba ni ci yi sañ a bokk ca jataay booba ca nga dañ lay wax tëyal saw lam bi bis buñ doxoon ci béréb ba gis ne joxe nga benn fatwa ñu yor firnde ji wala ne joxe nga ko yow bu boobaa keroog boobu da nga fanaani koo xam ne sa waa kër lépp su ko defee organisation bu rëy boobu ak boroom xam-xam yu xóot yi ñuy tànn di leen ko teg ñuy xam ne mooy tax yow yaay dem ba yëgal sa bopp ne ndekete ma xam ne laaya bi nangam lay tegtale nàngam lañ koy firee taxul ma mën a nekk mufti masala bi mën nañ la koo laaj nga xam ne laaya sàngam ñii lay firi fasalu ahla dikri in kuntum laa ta'lamuun laaj leen boroom xam-xam yi su fekkee xamu leen ñu laaj la benn laaj nga xam ko nga tontu ko loolu taxul nga nekk mufti lu tax mooy xóotaayu fatwa ci boppam fatwa dafa gën a xóot jàngale dafa gën a xóot jàngale ki yor daaraam wala mu tiim ab téeréem di firi la ca nekk bokkut ak yi nga xam ne dañuy ñëw di ko laaj mu war a xool li wër masala bi yépp war a xool xóotaay ba ca nekk borom xam-xam ya lañ ca wax ak juuyoo ga ak ñàkk ga juuyoo ga yi Cheikh Ousmane doon junj ne mënta ñàkk ci mujj tey yooyu moo jafeel mbir mi jamono yoo xam ne nit ñaa ngi fatwa nag te yooyu dajale wut ci ñoom dajaloo wut ci ñoom kooku mooy indi njaaxum mag a mag a mag a mag ñetteel ba mooy ab taxarri lil ibaax wa tabyin kii ubbee faw mu fexe ba fatwa bi muy def mu fexe ba mu leer nañ moo xam da ko wax ci làmmiñam moo xam da koo bind bu mu doon lu ñuy nës nësal bu mu doon wax yoo xam ne itam day xam naa la su aw jub comme niñ koy waxee nga xam ne lu ne nañ ko caa dégg suñ ko jógee kii ne li mu wax lii laa ci dégg kii ne lii laa ci dégg ñu tasaaroo juyoo kenn du xam lu mu wax kon lépp lu ca nekk ci luy loolu am lënd war na koo dindi war na itam wax wax yoo xam ne ki muy wax xam na lim ko tontu lu mu doon al imaam ibnu qayyim mi ci joxe misaal mu ne bul nekk bul nekk mel na mufti bi nga xam ne dañoo ñëwoon di ko laaj masala ci faraid yu miraas mu daal jël kayit bind yuqassam bayna alwarasati ala faraidillah wa katabahu fulaan daal di tawte nañ ko séddalee ni ko yàlla santaane daal di signé jox ko kayit mu def loolu tax foon laaj ne keneen ci ñëw laaj salaatul kusuuf muy julli bi ñuy julli buñ jàppee jant nee na mu ne ko loolu ngay laaj mu ne waaw mu jël kayit wa bind ci su salla ala xadiisi Aïcha wa kataba ko fulaan nañ ko jullee comme ni mu ñëwee ci xadiisu Aïcha daal di signé jox ko kayitam mu dem ba tey laaj baa ngi ci def di xamul lan la jullee ci xadiisu Aïcha su ko xamoon du ñëw di ko laaj kii itam xamul lan mooy farata ji lan la ko yàlla séddalee su ko xamoon du ñëw ci yow dina laaj kon tontu li dafa war doon tontu loo xam ne lu mat sëkk al imam ibn mu ngi nettali mu ne kaana indana mufti ida suila an masala laa yufti fiha xatta yataxaddamahu man yaktub xam nga nag léeg-léeg fatwa bi mbooloo koy def te kenn ku ne da ngay signé nee na mufti boobu li mu daan def mooy buñ ko laajee masala day xaar ba keneen tontu mu door a ñëw ne jawaab misla jawaabi cheikh maanaam li kooku tontu laa tontu loolu la cay nee na am benn bis ndekete ki doon laaj dafa jaar ci ñaari cheikh kenn ku nekk tont tontam mu ñëw xool ko gis ne ñaara fiñe ci suuf mu daal jawaab yi mis la jawaabi cheikh ay nee mu ne sama tontu comme ni ñaar ñi nga laaj niñ tontoo noonu laa tontoo nee na ko ah innahuma qad tanaqada ñoom ñaar kat liñ wax bokkut nee na mu ne wa ana atanaafabu kama tanaafaba mu ne comme que li nga wax ñoom dafa dafa juuyoo man itam li ma wax dafa juuyoo comme ñoom rek mu jeex xam nga lu mel noonu doxul ñuy wax ñuy wax nit na ci bawaabit yooyu moo di Cheikh Ousmane bi ñu woon mooy isaadatul mustafi ma lam yasal anhu inda alxaaja ci ñëw di laaj su amee loo xam ne yëpp gën a ñu soxla ko bokk na ci melokaani mufti bi mat mufti tontu mu tontu ko ca loola misaal bi Cheikh Ousmane joxe misaal yi yi gën a xóot ci bunt boobu ci la bokk moo di waa ji bi mu ñëwee di laaj a bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu tàmbalee laaj bi mooy inna narkabu lbahra wa a alqalilu min alma nun de dañuy faral di tukki ci géej dañuy faral di tukki ci géej te tuuti lañu ndox yor ci ndox suñ ko jàppee dañuy daal di naax suñ ci jàppee duut na mën naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal koy laaj bi mu waxee loolu ba àggal lañ ne ko léegi lan mooy àtte jàpp ci ndoxum géej mu ne ko huwa tahuuru maa'uhu al-hillu maytah mooy ki nga xam ne géej mooy ki nga xam ne ndoxam laab na méddam itam dagan na méddam itam dagal na li ci tënk mu ne ko mbëndum géej dagal na mooy ginnaaw nee na ko narkabul baxru dañuy tukki ci biir géej gi yonente bi alayhi salaatu wasalaam xam na ni ñii aajowoo nañ léeg-léeg ñu soxlaa lekk ci yàpp géej gi kon soxla la ñoo xam ndax dagal na wala dagalu moo tax mu tontuwaale ko loolu ci xadis Abdullah ibnu Omar ibnu Omar ibn al-Aas euh, ibnu Omar ibn al-Xattaab radiyallahu taala anhu ci saxiixayni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaja dafa ñëw laaj ko maa yalbasu muhrim ci armal lan lay sol ci armal bi ay lan lay sol yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko day du sol mbubu mun ñaw du kaalawu du sol kubéy du sol ay sàng mooy lu mel ni kawas te nekk der mu ne nag lu dul su fekkee ne dafa amu ci dàll su amu ci dàll sañ naa dagg sàng bi ba mu gën a suufee ñaari ndëggoom ñaari dojoor boo xoolee foofu yonente bi alayhi salaatu wasalaam waa ji daf ko laaj maa yalbasul muhrim lan lay sol waaye li mu ko tontu mooy lim dul sol ndax laaj bi noonu la waroon a tëddee ndax li muy sol yëbub kan waaye nag lim dul sol moom liñ ko tere xam nañ ko mu yem léeg-léeg laaj yi noonu lay jëkkee laajkat bi léeg-léeg kóotaay bi mu war a am ak xam-xam ba mu mën a am ba ràbb ab laajam mu tëdd ni mu war a tëddee da ko dul xam su ko defee ki koy tontu moom mooy xam nan lay tëre tontu su jaagi ni laaj bi nu mu dikkee rek tontu la noonu lay dikkee bu fekkee ne yàlla na tolloo la ñu di la laaj da nga dégg façon laaj yi bu nekk façon laaj yi boo xam ne yu doy waar nag sax léeg-léeg bokk na ci yooyu al i'raadu amma la yufiidu wal iftaa bima yufiid mooy li Cheikh Ousmane waxoon ba tey su nit ci laaj yi lu ko amalul njariñ yow tontu ko lu ko amal njariñ tontu ko lu ko amal njëriñ xam nga ci nit di laaj mbiri weer wi ni muy tuutee rek ni muy melaat bu mujj mu tuutaat mel noonu am na lu ko ëppal important mooy mu xam ne weer wi kat mooy li muy sukkandiku ba man cee xam ay jaamu yàlla ci lay wumee koor ci lay xame tabaski ci lay xame kañ lay aj yu mel noonu ci weer yi lañ ko xam ne loolu lañ waroon a laaj moo leen ëppal importance li mbokk mi doon wax ci bëkk démb waa ji ñëw léeg-léeg laaj yi da ngay gis koo xam ne li muy laaj boo ko xoolee la ko tàmbalee ci suuf ba ca kaw lu koy jariñ ñëwu ci lu koy jariñ du ci nekk xam nga ci ñëw di laaj jabari iblis mu tudd wala kooku boobu laaj amul ko benn njëriñ moo tax kooku ba mu koy toll daf ko daf ko tontu ala xabar histoire comme kanam toll foofu mu ne ko fekkee wu ma ceeb bi bokk na ci bawaami ji yooyu léeg-léeg day am masala yoo xam ne masala yi xam-xam la yoo xam ne diggante borom xam-xam sañ nañ ko gëstoon te di ko xam waaye ndonga li jóg tàmbali ci toll ci laaj ba xam ngir jëfe ji kooku loolu ay mbiram te masala yooyu dañ koy dund léeg-léeg ndax léegi da xale yi dañuy tàmbali jàng tàmbali ci téere yu kawe yoo xam ne àggaguñu faaw ñu romb ay xadis yoo xam ne lu leen gëlëmal lay doon su ko defee ñu topp nag di ko laaj laaj boobu moom daf leen di indi jafe-jafe lu ma ta bàyyi xel la léeg-léeg nga gis laaj yi ci faral di wëndeelu di tasaaroo mooy ñaari waay juri yonent bi sallallahu alayhi wa fu ñu nekk ndax ña nga àjjana wala ña nga feneen laaj boobu ban njëriñ moo bokk na ci yi nga xam ne tontal lu bari ci nit fitnaal leen day gën a def ci jëriñ leen ci wàllu xam-xam moo tax ku la ko laaj yow en tant que ku ñuy laaj nee ko ndax da ngaa jàng sa diine yi nga war a fas ak yi nga war a jëfe ak sa wàllu jikkoog lépp ba man ko ba àggal ba dara def ci nag lu dul yooyu su fekkee tontu la mooy waaw bu boobaa mën nga ko tontu bu fekkee tontu la du waaw mooy demal jàng sa diine sa jëfe waaye loolu sa bokk na ci dawaamit yi muy juróom-benneel bi ak tasabbutu mu toog palaasu ni ko nit ñi defe salma shitta laajal rek lu la toog maa ngi nii su bu mën a doon bu ne laaj na ak taraw wi muy xalaat teeylu xalaat ci bii laaj fan war a dugg lan mooy manaasam fatwa bi su génnee lan moo ci war a tegu lan mooy njëriñ yi ci nekk ndax lan mooy dalilam yooyu yëpp kii tontu war na koo teewlu door a joxe tontu su fekkee loolu amut nag xam ne day yàkkamti rek laaj mu daal di xalaatu ci boobaa li muy yàq mooy def li muy lu dul nag mu fekkee laaj bi dafa doon laaj boo xam yàgg na koo romb yàgg na koy jaar ba mu xam ko mën na suñ ko laajee rek mu daal di tontu juróom-ñaareel bi mooy adamul ijmaali fi mawaqina tatatallabu tafsil su fekkee ne laaj bi dafa laaj détaillé faram-fàcce su boobaa kenn waru ko gàttal am na laaj yoo xam ne tontam du mooy nga ko waaw ton du mooy nga ko déet waaye dafa aaja leeral bu baax a baax danañ ci joxe misaal waajaa ngi ñëw na jël mbubbam jox ko tailleur bi ne ko am ñawal ko mu ne ko bu bis sàngam ñëwal jël bis ñëw mu ne ko mosoo maa jox mbubb weddi ko weddi ko waaja dem ba mu yàgg benn bis tailleur bi yónnee ñu ñëw mu ne ko sa mbubba ngi nii ñu ñëw ci bukki bi laaj ko waa ji dañ ko doon ñawloo mbubb mi tailleur bi weddi ko ba mu yàgg mu delloowaat ko mbubbam ñaw na ko nag ndax dana ko fay wala du ko fay ndax dana fay waa ji liñ dige woon ci bu a ko ñawalee ndax dana ko fay wala du du ko fay soo nee rek dana ko ko fay njuumte soo du ko ko fay njuumte dafa aaji su fekkee bi mu ko weddee ci diggante boobu la ko ñaw waa ji ko fay parce que boppam la doon ñawal boppam su fekkee ne bi mu ko ne ñawal ma booba la ko ñawal ba àggal doon ko weddi mbub mi borom lañ koy moo moom da koy fay nan la xamee ndax da ko ñawal boppam wala da ko ñawal waa ji mooy xool tolluwaayu mbub mi bu fekkee ñoom ñaar tolloowuñ ñu xool mbubi gis ne waa ji bu gàtt la moom tëyër bi mu te mbubi ci moom la yem waa ji njool la mu xam ne na mu ko ko nattale woon yemul ci ñu xam ne kon euh, boppam la ko doon ñamal su boobaa du fay foofu dafa laaj jataay ci tool benn waaye lii di dàq aw rab boo xam ne dañ koy rëbb dem ba jot ko gor tànk bi tànk bi dagg la ca def daw dem mu yoru tànkam tànk bi da koy lekk wala du ko lekk boo nee da koy lekk du ko lekk juum nga nu may def tafsil leeral su ne rab bi rabu géej la rab buy dund ci mën na ko lekk ndax métti su rabu jéeri la nag du ko lekk nga def ah waaye am na rab yoo xam ne dañuy dund ci géej gi di dund ci jéeri yi ñu tuddee albarmaiyaat nu muy def kon ñu ne dañuy xool fa mu ko rëbbee su dee ci jéeri ji la ko rëbbee ñu jox ko àtteb rabu jéeri su ko lekk su dee ci géej gi la ko jàppee ñu jox ko àtteb rabu géej bu lekk jataay yu mel noonu mënta ñàkk biir fatwa waaye doo tëb tëb rek nga dagal wala dagal lu bari nag luy xatal ci wàllu diine di indi li am ndaw ñi nag ay jafe-jafe moo di mbir mu nekk dañuy jàpp ne benn day ñuul rek wala mu weex benn day nekk waaw wala déet day indi ay jafe-jafe même ba ci dundin yi sax nga gis koo xam ne day ñëw ne la man dama doon bëgg soxna sama yaay nee ma su fekkee ne takk naa soxna soosu daf may bàyyi àdduna ak àllaaxira te man soxna si mun mu ko bàyyi boo ne ko nooy mu ne ah xanaa bàyyi sama yaay sax wala keneen ku ñëw ci conseiller mu ne kon damay ànd ak sama yaay bàyyi soxna si mu ne ko dee leen jéem a seet ndax bi amul lu ne ci diggante bi mu dee diggante waaw ak déet ndax amul leneen lu ne ci diggante bi foofu la xikma di feeñe foofu la xam-xam itam ak xóotaayam di feeñe ndax wari su ko mën a fexe ba sakk soxna si ba noppi sàkku ngërëmul soxna si ba mu wëlbati soppi ko waat ndax bul fàtte ni ñaari daara bi suñu borom tabaraka wa taala ci la doomu aadama yi yaay ji gàntu tey war naa mën a am fu ñu koy jaar ba nangu su fekkee wóor na ne soxna si ku baax la ci wàllu diine bu waa ji bëgg na ko war naa mën a dem ci yaayam a xam fu ñu jaar ba àgg te xool ba ba gërëm loo mu ne ko macha allah demal amul solo soo yàlla waaye rek ni faw nii wala nii bu demewul noonu faw damay bàyyi leen jaadu na itam ci dawaabit yi an yu waaw nee def na ko al yumahida lil xukm al mustagrab léeg-léeg laaj bi day ñëw nekk laaj bu tumuranke boo xam ne tontam mën na rëy lool ndax nit ñi mënuñu ko su boobaa laaj na def ko ay étape tontu lu tëb tëb dañu ko xis benn yoon boppi nit ñi toj wala ñu fabi yëpp waaye ndànk ndànk suñu borom tabaraka wa taala sax noonu la jëflante ak doomu aadama yi noonu la jëf leen ak boo xoolee man ci xisatul Qur'an da ngay gis ne li jiitu ci suuratu Mariam bi muy nekk lu juddu Isa alayhi salaam la xam ne lu kéemaane am na fu jaar ak nit ñi Zakariya la la njëkk a nekk li ak ñaanam doom gannaaw boo xam ne dem na ba màggat soxnaam màggat mu ñaan borom bi tabaraka wa doom mu may ko doom xisa boobu la la alxuraan jëkk jox nit bu jàngee loolu xelam mën naa dal tuuti mu ne ah waaw nit dana dem ba màggat kon ndekete am doom mu door a indi xisab nag ki nga xam ne dafa juddu ci yaay te judduwul ci bàyyi préparé na xol yi ba su loolu dikkee ñu mën koo gëm Zakariya it bi mu daan àgg ci loolu dafa jëkk a gis mbirum Mariam su jaaxal ko mooy day toog ci mihrab bi jullikaay bi bu dikkee fekk fa aw ñam woo xam ne xamul fu mu ma war a ñor nawet la fay bu dee waxtu nawet muy gis bi war a ñor noor mu laaj mu ne ko wërsëg la bu jóge ci yàlla xanaa kooko dal day ah, yàlla mii di joxe lu li may màggat màggat tey mooma ñaan ko doom ko waaye ku ñaan doom su màggat borom bi tabaraka wa doom na jox cër ki nga xam ne dafa juddoo ci yaay te juddoo ci bàyyi kon masala bi laaj na ki nga xam ne dafa ñëw di laaj mu wóor la ne tontu lu rëy ngi la wane su ko dikkee mën na koo indil fitna wala mën na koo indil ñi koy déglu gannaaw bi am koo jaaral moom ci wàllu leeral ba mu xam loolu toujours danañ ko di jox mbokk yi léeg-léeg du yem sax ci wàllu fatwa waaye ci wàllu jëfe lay doon léeg-léeg ci wàllu jëfe lay doon am nay masala yoo xam ne boo tëboon tëb rek jiite nit ñi seen kanam julli def ko mën na leen indi ñoom ñëpp fitna mën na leen ko indi ànd ak masala yooyu amaana mi ngi ci téere yi amaana itam lu am la waaye nit ñi xamuñu ko mosuñu ko dégg mosuñu ko gis kon kooku fan laay mën a jaar ba préparer nit ñi ba suñu gisee loolu du leen jaaxal mooy dugal ko ci sam jàngale jàngal leen ko bañ xam ne lu mel nii am na dugal ko ci xutba ajjuma xutba ca ñu xam ne ah wala li ko kon lu mel nii am na bis buñ gisee ku koy def duñ ne kii génn na waaye lu dul loolu bis boo xëyee am na ay façon julli wala xeetu façon yëpp yoo xam ne mi ngi ci biir téere yi boo ko defee ci kanam nit ñi ñu bari keroog nga leen di mujj jiit lu ko waral mooy ñàkk leen a préparé fatwa yi noonu la mel li ngay tontu nit ki bu dee lu ko indil fitna préparé jël nañ ko sax bu jaree laaj ne ko bàyyi ba feeg ñaari fan waxtaan moom beneen waxtaan woo xam ne ci jotaay bu gën a yaatu ba mën a feeg dara ci am xelam ba a préparé mën a dégg lu su ko laajee itam ngay jàll nga def moom bokk na ci yooyu moo di tanbihu xaain ila ma yarfau lwahm su fekkee ne ci laaj tontu bi am na lum làmboo loo xam ne xaw na cee mën a dégge leneen jaadu na nga dindi loolu loolu bu ci dara dégge te loolu ajuwu ci loolu war nga koo mën a dindi yonent bi wax na ko ci xadiisu laa yuqtalu muminun bi kaafirin wala du ahdin fi ahdihi xoolal xoolal xaaj bi njëkk bi ci xadiis laa yuqtalu muminun bi kaafirin foofu li mu wax foofu mooy jullit bi su reyee bi yéefar it kenn du ko rey su yemoon foofu lan lan ciy déggee mooy yéefar boo gisee rek sañ ngaa rey loolu rek la ciy dégg laa yuqtalu muminun bi kaafirin ginnaaw yéefar la te nanguwul a gëm te su ma ko reyee dara du ma ci war kon tey naa rey yéefar yi mu jeex benn doonte sax dafa doon yéefar boo xam ne dafa nekk ci biir réew yi jullit yi di ñeente ñoom accord di dund ci seen biir itam dama ko rey waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax boobu wala déggiin wu ñaaw woowu mu gaaw dindi ko mu ne wala du ahdin fi ahdihi ki nga xam ne dafa kóllëreente yéen di ab yéefar boo xam ne dafa am accord bu dox seen digganteeg moom moo xam daa ñëw di dund ak yéen wala dafa siñeenteeg yéen réew ak réew ne xeex doxul seen diggante jàmm fi dox sañoo jóg yor sa jaay wala sa katal dox ci ñoom di leen rey wala ngay taal fañ nekk ñuy faat kon din bi lënt moomu kooku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la def foofu incha kon danañ jéem a gaawal li nga xam ne moo ci des euh, ay mbir yu nii moo def ci mbir mi Euh, bokk na ci allah taxmilahu al axraad al fasida ala tatabbu al xiyal al muharrama bum bëgg a ubbee nit ci tax bëgg koo yombalal tax mu topp yi nga xam ne moo ñëw ci ñu tudde ay ruqam maanaam yombal yi nekk ci sharia mu di ko dajale su nit ñëwee koo xam ne xaritam la mu jox ko ci yomb yu yomb yi bu keneen ñëwee koo xam ne du xaritam mu jox ko ci yu diis yi déedéet loolu ëpp naa def moo tax abul walid al baani muy nettali an baadi ahli zamanihi ممن نصب نفسه للفتوى أنه كان يقول إن الذي لصديقي علي إذا وقعت له حكومة أو فتيا أن أفتيه بالرواية التي توافقه musiba nee na dafa dégg musiba mu naan bokk na ci yi nga xam ne lu war ci man la mooy su fekkee sama xarit ñëw na di ma laaj ma seet lu dëppoo la mu gën a bëgg a dégg ma ubbil ko lu demee noonu kooku musiba la na wartandiku lu mel noonu jaadu na itam allah yuftiya fi xaali tashawusu fikri su fekkee am xelam darut bu mu ubbee bu mu ubbee su meree wala mu xiir wala mu mar wala mu jàq wala mu gëmeen wala mu feebar yooyu yëpp day tax bu mu fatoo ndax yooyu dafa laaj xel mu teew mu fa nekk moo xam ne waaja fam nekk faram xelam nekk waaye li bari li ëpp lu baree bari sax ci nit ñi fa jëmm ja nekk fa xel ma nekk day wuute léeg-léeg ndax ay mbir a koy waral jamono yu ñu yëgee ci boppam loolu nag da koy aw lam ñun taqwa bokk na ci li bokk mi doon jun ji mooy ak tafrit bayna masail fatwa wa yi nga xam ne wàllu fatwa la ak masala yi nga xam ne wàllu jugement la wàllu atte mufti bi doonul kuy atte nim la ko leerale moom day nettali al islam mooy al ixbaaru bil xukmi sharci liman saal ki la laaj atteb sharia nga ne ko lii la ci sharia wax foofu la sa responsabilité yam alqaadi nag yemul foofu moom day génne atte bi ba noppi wéyal ko par force lu bari nag ci mbokk yi dañuy faral di jéggi fi leen fatwaayam loo di jàll ci wàllu xabaar wàllu maye sëy ak tas ko ak lu ca aju kooku wàllu xabaar sultaan moo koy def muy pouvoir wala boobu nga xam ne peuple bi ci boppam mbooloo bi ñoo dajaloo samp koo xam ne jox nañ ko àqi mu àtte leen te fekk nguur ga ko nekk d'accord ci loolu loolu jullit yi bu leen neexoon mën nañ ko defal seen bopp seen jàkk yi ñuy daje di fi takke seen sëy yi bu leen neexoon mën nañ fi daje sëy bu am problème ba mën a tula àgg war nañ koo mën a saxe foofu tey loolu kenn du leen ko tere moo tax yi ñuy faral di xëccoo yu ci bare bari mën nañu ko defal seen bopp parce que kenn forcé wu la par force defal nii waaye nag yu ci bare bari euh, def nañ ko def jéemuñu ko comme que dafa xaw a sori jaadu na itam ci kii ubbee bokk na ci dawaabitam at tafriq masail al ijtihad wal masail allati la mujaala fiha lil ijtihad masala yi nga xam ne nit ki mën na cee ijtihaad def effort am bokkul ak masala yi nga xam ne texte bi dafa ñëw ne lii nii la texte bi moom ko sax a joxam atteel ni loolu nii la ah, sa ijtihaad mënatu la weesu xam nan la ñuy tatbiqe loolu waaye sañoo ko wëlbati ko di ko jox leneen dégg yéen bu bokkut ak moom amoon masala yi ijtihaad mooy masala yi nga xam ne ak jooyoo mën na caa am mooy ajuwul ci wàllu aqida waaye dafa aju ci wàllu seeti ibaadaat yi ba noppi nusuuf yi ci ñëw muy tekk yi ci ñëw moo xam alquran wala sunna mën naa am ay dégg yi ñu wute ci diggante bi eh, bokk na ci yooyu an yatraja an fatwaahu ida baana xata'uhu jamono yoo xam ne wóor na ko ne li mu ubbee woon njuumte la na nangoo wax ne juum naa nett li nañ jële ci benn imam bu ñuy wax alxasan ibnu ziyaad al lu'lu'i ñu ne benn bis dafa ubbee ci benn masala mu wóor ko ne juum na ci ngoon gi bi mu toogee di seetlu masala yi mu jot a tontu tey mu ne masala sàngam day njuumte la xaw ma nag laa ko ubbee loolu ci waaye kooku njuumte la nu mu dafa woo benn munaadi yi ab yéene kat buy wër ci mbedd yi di leen wax ne alxasan nee na képp koo xam ne ubbee woon na ko bisub tey na ñëw wuy si na ñëw wuy si kooku wër di woote bu doon tey mën ngaa wax ne day def communication ci rajo ba yëg képp koo xam ne ubbee woon naa ko ci li sàngam na ñëw ba mu ko defee mu daal di ñetti fan ubbeetul nangoo dina tontu kenn ba waaje ba nit ñi ñëw ku agsi mu ne la yow lu ma la tontu woon mu ne ko nangam mu ne ko yow lu yow demal ba mu ko defee ba ci ñetteelu fan ba waaje ñëw mu door ne ko yow la ma la waxoon loolaa ñu wut yow laa doon seet li ma la waxoon. damaa juum kon lu mel noonu mbir yu aaj bàyyi xel la ci ki xam ne dafay tuddee ndax ci doomu aadama dinay juum bi ñuy mujjee kon ndax waxtu jeex na mooy taxsinu ibaaratil fatwa jëmmi kii laaj ni a rafetale ab laajam kii tontu it noonu la war a rafetale tontam mbokk yi laaj rek rek euh, bu bu mag ñu wax Zakaria Saaji day wax ne ndonga de su may laaj wala muy jàng mu di ma liiral téere ba ne ma maada qulta rahimakallah ñaan gi may ñaanal le ne yàlla na la yërëm nee na am na cawarte bu may def man boo xam ne day tax njàngale bi day tax ma sawar loo waaye kii laaj da nga dégg laajkat boo xam ne bu la laajee am na cawarte bu mu def ci yow cawarte bu mu def ci yow boo xam ne euh, waxin waa teggiin bi ak laaj ba na muy leere daf lay ubbil daf li ubbil sa xol waaye léeg-léeg nga koo xam ne laaj yi lay laaj boo xam ne bu xaw a doy waar kooku jaar ci turu léeg-léeg kooka na koo mat bàyyi waaye kooku Ousmane bi laaj kooku Ibrahima Khalil nga ne waaw mu ne nangam nangam léeg wax waxin woo xam ne la muy def ak jaaxum la ba noppi ci yow la koy jëmale boo duggee ca wana ba génn ba def nangam ak fekk li muy jublu mooy bu nit defee loolu waaye yow day mel ne la yoon kii laaj ci boppam ni mu war a rafetale waxiinam kii tontu it noonu la war a rafetale waxiinam ci wàllu tontu ñu wax ne kenn ci góor yi dafa mas a gént ay bëñam lépp foofu bëñ yi lépp foofu mu woo benn borom xam-xam boo xam ne nee nañ day firi gént mu ne ko damaa gént samay bëñ foofu mu ne ko yow say bopp ñëppay faat buur bi daal koy toroxal dàq ko mu dem mu ne lañ ma seetal keneen ñu indi keneen mu ne ko santal yàlla ndax saw fan dafa nar a gudd dana gudd gudd gudd ba sa famille yëpp yaa leen gën gudd fan mu daal di koy neexal jox ko ay may yu bare bare bare mu dem ñaar ñi ñoo bokk lu ñu wax ñoo bokk lu wax yëpp kii ne ko sa bopp yëpp dañuy baaxu nga def bi waxin wa moo ñaga waa ji toroxal ko waaye kii ne ko santal yàlla soo fan day gudd ba sa mbokk yëpp dem nga def ko kooku loolu la wax waaye waxin la rek kon dëgg gi dana doon dëgg waaye lañ koy waxee ñagasal ko am keneen ku ñëw waxaat li nga waxoon mu dugg ci xol yi ñu nangu ko te fekk nga wax li nga wax kon mu mujj loolu yéen si loolu ba des waat yeneen yi ci nga ko wax. daal ma am tey mbokk yi ñu ngi sant sëriñ bi di ko ñaanal yàlla tawfiq ak